donc là nous association émergence solidarité Nous euh, sommes di di di donc une opération 7 lañu euh, vraiment lu donc euh, comme nous dit, nous aussi pratiquement ñu ci mais nous par zone euh, euh, ils se sont divisés en quelque sorte vraiment un c'est un acte à saluer on évite tous les bamboyas à faire de même Là, c'est un agent de la mairie. Euh, il s'appelle euh, Thierno Diouf. Euh, Thierno, mën nañu xam sa impression ci initiative de rafet bi nga xamante vraiment le gars a saluer la. waaw euh, lii dañu amoon salaamaaleykum d'abord di nuyu population Bambey nous avons dañoo amoon intention c'est à suñu parce que nous savons xam na président de la République bi muy euh, lancé message fan yii paase bi muy prêter dafa lancé message comme quoi les villes doivent être ci initiative boobu lañ nekk ñu gis ne Bambey aussi am na côté yu bëri soo xam na ci côté euh, insalubrité bi moo waroon tey ñun suñu groupe di tudde ko solidarité émergence solidarité ñu jël initiative bi ñëw fii garage parce que ku ne garage xam ne fa la nit ñi daje ku ne garage xam ne vraiment euh, fa la nit ñi sànni li ci ëpp ci ordures yi ñu daje fi tey comme nga vous l'avez constaté vous-même nga gis mbalit mi ni tey ñu koy mais c'est un acte de citoyenneté boo xam ne ñun initié euh, avec l'appui du maire Gana et de madame Fatsen aussi et de l'ensemble des responsables qui se trouvent au niveau de la commune de Bambey ñu mën ñëw fii éparpillé comme ñu ko en groupe pour vraiment setal suñu dëkk participer suñu développement maintenant dama gis aussi tamit l'information n'a pas tellement circulé parce que yaakaaroon naa ne quand même mënoon nañ ko gën a yaatal gën ko publicité parce que aussi ce sont des actes yoo xamante ni bépp population bu dëkk Bambey dañ ci war a participer. waaw d' accord ngolo loolu li nga wax dëgg la euh, je pense que Mamadou euh, comme vous l' avez constaté il y a pas trop de monde ici mais on a on s' est divisé en en, en sous-groupe. Mhm. vraiment pour. Euh, gën a gaawal affaire yi. Mhm. am na oto camion bu fi nekk aussi ak benn pelle boo xam ni mooy ramasser ordre yi mi ngi ñëw léegi nii. Mhm. Euh, information bi d' ailleurs euh, c' groupe restreint comme ni ma la ko waxee sànq. Mhm. organisation de solidarité ce sont les membres que vous voyez ici ñoo nekk ni vraiment pour nous aider. ci c'est un début mais bu koy il y a d'autres jeunes comme les autres quartiers bu ñu koy defaat dinañ ko gën a yaatal pour vraiment population adhérer. adhéré ci mais comme on le dit souvent tout début est difficile te lii je pense que population Bambey ak ñi leen xamee buñ ko buñ leen buñ ko déggoon ñoom ñëpp dinañ en masse mais on a préféré vraiment aviser les gens du garage ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi pour vraiment faire l'acte d'abord diviser au niveau de de de la commune pour après nous gën y yaatu ñëpp mën ci jot ñëpp participer Inch'Allah. merci beaucoup Diallo. ça c'est As Diop. Euh, Aiguë di grand entrepreneur euh, ma suis venu la nga nekk fii di def set setal euh, ñu bëggoon am impression ci. ci ci rajo ci télé Bambey TV donc ñu bëggoon a am sa xalaat ci mbir bu rafet bi ngeen nekk di def. voilà ñu rafetlu tamit euh, teewaay bi ndax euh, yow itam xame nañ bu baax ndax jàmbaar nga ci dëkk bi li ngay def tamit am na solo lool. aussi di di sant waa Bambey TV yëpp euh, aussi tamit li ñu def nii sant yàlla dogal na ñu ngi ci dëkk bi te ñun li ñu ñor mooy. Euh, lu lu doxal dëkk bi euh, développement moo ñu ñor en tant que entrepreneur ne si dëkk bi di liggéey ci dëkk bi war na lu dëkk bi jóg di liggéey ngir defar Bambey sagam ñu ngi fiy jël suñu ñàkk rek war nañ see jàpp liggéey si ba ñëpp xam ne lii nii euh, suñu warugar la ndax loolu moo ñu ñor lii nag ab groupe la bu ndaw rek muy émergence et solidarité ñu def ko pour que loo xam ne xalaat nañ ne war naa mën a defal dëkk bi rek ñu jàppale si li nga xam ne mooy mairie beeg ñeneen ñi nga xam ne war nañ def seen wàllu ñu defal leen li nga xam ne moom war a def looloo tax ñu ñu ñu taxaw ñu def initiative bi bu ëllëgee nag am na feneen fu ñu koy defee ndax yeneen quartier yeneen euh, armères yeeg yëpp ñu ngi koy programme daal bis bu ne ak lañ fay def hmm. voilà loolu daal moo doonoon li nga xam ne koy mooy taxawaay bi merci beaucoup Kan Babacar hmm. kan? ah eh, acte bu bu rafet la bu ñuy saluer eh, bëggoon eh, am ci sa xalaat lan moo sabab mbir mi ak aussi tamit vraiment comme ni sa yeneen naataango yi waxee gën a population bi ñu participer ci que aussi solo donc euh, ñoo ngi lay nuyu Mbodj Ndiaye di rafetlu aussi ak acte bi nga dem parce que ñëw nga teewe si te yaakaar naa ne kenn yëgu loolu da nga romb ba yow si ñi ñi ñi doxal affaire bi si nga bokk. affaire bi dañ ko créé uniquement gis nañ la fii peut être ci Bambey mooy mooy mooy bëtu Bambey donc ku ñëw ku ñëw bëgg a gis Bambey fii ngay gis a Bambey ñu gis ne vraiment ginnaaw garage bi ni mu mel jéggi na dayoo ñu ne il ñu ñëw set setal ko. te encore une fois tamit nit bu nekk ci àdduna bu wérul du mën a liggéey te lii bu continuer yaakaar naa ne euh, ñi fiy wér aussi duñu bari loolu moo tax ñu am xalaatu njëkk fii mais fépp fu lu mel ni am ci Bambey rek ñaanal yàlla dem fa ànd ak nga xamante ni vraiment tamit ñoo si jàpp mooy suñu ñaari leader yi Fatou seen ak Gana vraiment yombalal ñu liggéey bi si wàllu matériel si wàllu moyen si wàllu lépp donc aussi ñoo ngi profité aussi occasion bi aussi waa garage bi ñi nga xam ne aussi jàpp nañ ci affaire bi ba aussi la participation des dames ñu ngi fii ak sunu benn jigéen Ami Faye Ami waaw yow noo gisee mbir mi. ah nu góorgóorlu rek ñun ñëpp jàpp rek defar Bambey rek te satal ba ñëpp dañoo war a génn jàpp ci parce que baax na ñoo ko moom ñëpp dañoo war a sama ba mu baax su defee ba si sama ndig mënu ko may ma la ko dalaal bu gudd moom waaw sëñ Moussa ci kàddu yu tey dama xëy gis euh, vraiment initiative bu rafet bi ñuy nekk di bale fii nga xamante ni mën nañu wax ne moo gën a presque salte ci Bambey ñu bëggoon a xam lan moo ko sabab waaw ansbilah mina seytaane rajim <laughs> comme ni ma ko waxee euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla jibi cont bi euh, sant suñu waajur sant aussi autorités nekk ci dëkk bi yëpp Euh, di sant aussi waa garage bi nga xamante ne nii euh, ñoom Ousmane Faye euh, ak émergence solidarité bi nga xamante ne ñëw na émergence bi nga xam ne ñëw na jàpp appuyé ci secteur bi nga xam ne ni dañ ko initié ànd ci aussi ak monsieur le maire ak Fatou ñoom ñëpp kenn ku ci jàpp ci ndax matériel bi ni ngay gis monsieur le maire moo ko di jël di fekk ko ci suñu loxo ñun ak ñoom Ousmane fay nag ak chef de garage nekk yëpp ci garage bi ñoo àndandoo xalaat bi lii nag wax dëgg yàlla ba ma koy def aussi euh, boobu yàgg na te yaakaar naa xam nga ci dara donc euh, ren ji nag man nañ naa ko yaatal ñun ñëpp xam ne Bambey ñun ñoo ko war a mën a setal ñu àndandoo pour wax dëgg yàlla jéem a def tout ak maire bi pour mën a setal bi kon nag euh, du ma def lu dul aussi di remercier ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci set setal bi ndax ñun bu yàlla dogalee ñu nekk taalu ni sëñ du Karim borom Makarimal Akhlaq ah lépp loo xamante ne nii euh, liggéey la dañ cee war a nekk ndax àdduna bi nii liggéey moo fi nekk ak jaamu yàlla loolu nag te jàpp nañ ne lii liggéey la ak jaamu yàlla ah ci ndigal loolu la ñuy nekk fu ñu nekk itam ci loolu la ñuy nekk liggéey jaamu yàlla loolu daal ci la ñu nekk.